non kenn du la fi énervé ku la fi sañ kan mu la fi sañ a énervé. bu jàkkaar bu toog sama kanam toog nii daa toog nii wuy ma daa toog nii Lamine na wuy ma Lamine bu ma énervé. ah non waaw waaw moo tax teg la micro yi ñu waxtaan. waaw moo tax ñu war a waxtaan mais dama doon laaj léegi waa Medina. waaw ñoom ñëpp a nga fa amu droit laaj ma saan ko lamb jëlee jaan nga bëgg xool lambi Papa Sow Siteu lamb Papa Sow Siteu lan nga ciy bëgg a xool yow maanaam loolu la ci jaaxal oui ma xam nga maa yoo xamante nañ mu mënoo dugg sama yow ma lay laaj nang rek jàmm sant nii ah ma waaw wàccal micro yi ñu ñëpp nga fa ak 17 ñëpp cëriñ ak cëriñ ak fukki benc ñoom ñëpp nga fa ñoo la sa société daa mel ni non ñu nga fa ñoom ñëpp alhamdulilah ñoo la yebal gone ak fan nga man gone ak bawal de la waaw ah, moo tax nga may jaay affaire bool bool nii jëma jëma ruux nii. non ah, dafa xaw tàng tuuti wuy ma copain dañoo toog nii. yow xam nga da bool bool loolu dañoo toog nii. bàyyi yor jikkooy kajoor kajoor itam yor nga ko. copain wuy ma wala wala. waaw mais waaye wax ñu toog nii dafa dee on a beaucoup de temps non dañu am temps bu bari fii. yow la tàngoor wàññi. Ah, la luy sa problème yow. dégg nga maam Maodo maam Maodo ak da bëgg da bëgg da moom laa fee rek lay wër maanaam da bëgg wax ji fin rek xam nga maanaam da bëgg wax ji fin rek xam nga da bëgg xam nga c'est que sa adversaire sànq sànq dama daam am lu ma ko laaj moom daa jàpp moom jàppiwu la sax adversaire ci ni ma ko déggee ah ci waxam maanaam loo xam ne luy jaar la mu faxas koo dem ah, moom moo ko wax moo coxataan wallaay amaa ko wax wala mooy coxataan yaa ngi ci YouTube bi waaw ah, non dama li TV wala les arènes di nga ko fa gis waaw ah, amul problème benn la rek ah non <laughs> benn la rek mais Ama lan la la xeebe. non ah peut-être xam naa moom ma gën a peut-être moom ma gën a moo mën moo ma ëpp doole xam naa xam naa loolu la rek. sab xeex itam wax naa ko ko mu ne loolu moom nee na say ku nag moom da koy moytu nee na ab xeex moom des koy moytu. non bii sax dama koy jox xiir bi laa koy jox na ko caw moytu maa rek dama koy jox xiir bu ma caw rek dimbali ma. mais moom am na nu mu wax sànq de capp xaw ma nan capp yokkoo. capp caaw capp caaw ma ne ko mbaa du tàng boo cappee mu tàng. xanaa daal ma ne si ah capp. caaw caaw caaw affaire chinois la de. Ah. mais yéen ñaari droit ci Gris Bordeaux Ama Baldé ñaari droit ci ci stade arène nationale gée. non yooyu yëpp garaawul xam nga làmb làmb làmb xam nga loolu loolu loolu loolu stratégie bëre la rek loolu ñaari fausse garde rek ñaari benn la c'est la même chose amul amul muskila et puis nee na kontaan na ci seen ànd yéen waa Fass ni mu leen gisee keroog nee na Tafa Gueye ñëw Père Abbas ñëw ngeen regroupé wu loolu lépp da cee kontaan waaw ah, mais moo jaadu man tamit loolu laa koy ñaanal tamit ah ñëpp waa Pikine yëpp nekk ci ginnaawam loolu moo loolu moo jaadu ci làmb làmb ànd ak say mbokk ànd ak say xarit say am di jàmm loolu moo jaadu mais mën nañoo gis Gris Bordeaux bi nga xam ne arbitre balaa daan soufflé mu daw daw del si waat tëb ñetti ay soo ay 5 ci kaw waaw ah, ama Gris moom écarté tànk yi Gris moom incha allah Gris is back mooy ñëw giri bu bees waaw bu bees tax incha allah. waaw jàkkaarloog bu pare moom mooy ñëw. bu pare waaw. ci def bu pare pare moom amul ay moom lépp li pare ci lépp. incha allah waaw kon ko laajee ci la waaw xam loolu la mbër dafa war a confiant il est confiant booy la dafa war a confiant gëm boppam. booy man booy bu ma sawar a bëral la parce que dafa dafa gëm boppam engagé wu loolu dafa dafa baax ci adversaire. moom nee na gars yëpp bu ñu sañoon nga daan ko mais waxul kat ab ay requin ñuy requin yi. ah moom loolu moom aw ma ci tontu waxul man loolu moom wax dëgg yàlla ah waxul ak man kay loolu lu mu ci mën a tontu. c'est maanaam fi ñuy waxee mooy ça veut dire moom dafa jàpp ne adversaire nga boo xam ne nii maanaam yow euh, say mbir moom. du mbir yoo sama rakk la magam laa làmb moo ñu boole ñu war a bëre ak mag nga waaye xam ngeen fëggante de non mënu ñàkk man mën naa man man man man signature contrat mën naa fair play xam nga mais man sama làmb mënul mënul bañ a neex xam nga ama rakk la magam laa war a bërëg moom am satisfaction ak contentement bërëg moom xam nga te nag wax dëgg yàlla j'avais beaucoup de proposition avant ñu ma koy proposer ci yeneen adversaire adversaire mais bërëg moom ak xadar gi mu am punch bi xam nga loolu loolu loolu loolu man man man ku ku ku am bagage yooyu laa gën a sawar a bëri. te day effacer adversaire de bu la fa fekkee rek moom la mu bëgg a def si lay def. loolu laa bëgg loolu man loolu dafa ma arrange. ci bëri waaw war na mën yooyu parce que booy la war na mën yooyu. Ah. bu defee demi flexion war na mën yooyu ndax xale la nag xale la war na mën a jékki-jékki naaw sax jàpp sama tànk bu ko jàppee nag léegi. ah xaw ma de. man de bu ko jàppee laa xamul dafa war a am nooy def yow. bu amaa mii la nga amoo say tànk. mais dama ne mën naa naaw sax xale la mën naa naaw war a naaw sax sama tànk. te léegi grand contre petit daa xew. ah mais loolu làmb ji loolu moo koy kii làmb moom ñett la. bërëg say moroom say mak say rak. génération bi da ngay ñaan yàlla bañ a bërëg say doom rek. mais làmb génération boobu ma say morom. say mag say rak dañoo toll bërëg suñu rak. Hmm. ama suñu rak la te wax dëgg yàlla barki Xalifa Malick proposition yi ma amoon avant ñu ma koy proposer dafa bari mais bërëg man dama bërëg mbër bu nekk der mbër bu ñeme am fougue de jeunesse am engagement man dama sa waaw man man dama dama dama man taamu yooyu non dama lu tax nga bëgg lu tàng waaw mais parce que làmb ji amateur yi ñooy bëgg mbër ñaari mbër yoo xam ne duñu amul arbitre bu sifflé dañuy ku ci nekk li nga indi da koy def parce que gars yi nañ Gris Bordeaux du triste ci biir géew ah loolu la gars yu bëri mu nekk sama bopp bis bu ma naree nekk ci làmb bëre ñaari léewtoo ñaari minute te bërewu ma defuma li ma war a def non mieux vaut ma bàyyi. maanaam sab léewtoo yow mënoo koo rombale deux minutes. non non loolu du su bokk du du ma genre boobu je suis offensif. moo tax peut moo tax euh, loolu mooy tax amateur yi duñ ma jëpp ci benn combat parce que làmb da ngay def li nga war a def. Hmm. ndam nag moom ci yàlla la aju mais def li nga war a def. mais combat barki dem bi dinaa ci ñëw noo ko gis. jamal waaw. mooy liggéey mooy ñëw Gris bu bees xam nga mooy supporter moo xam nga lay dalal xelam non li mooy caution damay damay dóor dalal xel non da nga naan xamante nañu dalal xel dalal sa xelu supporter moo dama ko bàyyi ba mu daaneel dama na la parce que daanu bàyyi ko ba wàcc daanoo ci gën a gaaw li ah. mbër ni muy dalee ay supporter am mooy supporter yi koy supporter yëpp xam ni mi ngi daj mi ngi daj ay coono yoo xam ne li muy daj ci coono mburu sox daju ko ci taal loolu mooy assurance wu mbër ak ay supporters am te incha allahu rabbi waaw mais moo tax ma xam ko dama ko koy teel teggil kii xamante ne noonu soo mu développé rek développé ma dama ne li may dalee sama ay samay kiwu supporter xelu supporter mooy di entraîner guddi ak bëccëg suba ak ngoon mooy indi Gris Bordeaux bu bees tax Gris bi ñu daan gis mooy daw ay course Gris Bordeaux bu bees bu bees moom dañ ko dënk bu bees mooy bees rek mooy Gris Bordeaux bu doon jékki-jékki. jékki waaw buy fecc feccu lébu yu garaaw. ñëw nag incha allah ay di nëpp. non dégg lu ma la wax du yee lëg daaru. waaw lëg <laughs> yaa may yëngal waaye tamit nag bàyyi loolu dama lay song de. <laughs> mais combat dimanche passé seetaan nga ko seetaan ak Papa Sow. waaw naa ko mais combat bu neex combat lamb nag gën na neexee noonu nag. ci ci waaw ci ambiance ci folklore xam nga wax dëgg yàlla ñaari mbër yu engagé wu xam nga. Mhm. yaa ngi wu fukk. xoolaat ne sax. mais mais ci sa gis-gis lan moo tax ñoom ñaar ñu lewtoo dix ba mi-temps te kenn laalu sa morom. pression làmb ji làmb nag pression parfois dafay yii làmb c'est dommage que ay mbër mosoo leen takk ngemb mais. daa non. boo leen mosoon bëre di ngeen xam ni mbër bu taxaw pendant mbër mën naa lewtoo su xefee mën naa lewtoo sa balaa ma ji jot du ko tey. Ah. ndax la pression. pression dafa garaaw ci làmb. mais song bi songu bi Papa Sow song ak busulu bi ko Siteu busulu. làmb la. làmb làmb làmb làmb làmb bu erreur ah, bu erreur bu erreur. papa fu mu la def lool la Fatma Dia wax. papa ban erreur la def. papa sonkot la. mais bi mu def quoi pour ña ba ñàkk combat. non mais man man dafa yàgg ci tànk yi. dafa yàgg dafa yàgg quoi. njool la Siteu njool la. Hmm. tànk saa yow ci dafay papa papa bokk na ci mbër yi dàq song ci làmb làmb ji. ci làmb bokk na bokk na ci mbër yi dàq song ci làmb ji. Hmm. mais nag parfois dangay def erreur boo xam ne. yow mii sax boo demee toog di nga xam ne yow jàppkatu tànk yëpp li am waaw te te Papa li ngay fausse garde la mais ci pied gauche tànku pied pied gauche. bu nekkoon gauche bi war na ko ndomb bu yàgg. gisoo ni mu def ma Mandione daf ko laal rek wiiri. boobu bu nekkee droite day bëgg a dëj. mais bu nekkee gauche day day jàpp rek wiiri. wiiri jaar ci ginnaaw. mais moom gauche day bëgg dëj mais dafay yéex ci tànk bi. fay def temps d'arrêt. temps d'arrêt bi moo tax euh, saa jàpp jàpp ci ngem ngem bi mu mun ko lippi mën ko busulu. waaw ah, mais làmb la jeunesse jeune jeunesse la woon ak. Euh, encouragé papa papa nag xam dégg naa aussi ay wax am na ak xam naa ak tàng tàngaayu làmb ji rek parce que déception la am ci làmb ji mais papa li mu dese ci làmb bari na papa génération non papa bu amul benn bon benn ndok-ndok non mi ngi soog a commencé waaw bu amul benn ndok-ndok bu amul benn ndok-ndok amul benn ga blessure boo xam ne peut-être mën na ko kii non papa mi ngi soog a carrière am mi ngi soog papa papa booy yi nekk fii yëpp war na bëri ak ñoom Mm. papa tey la làmbam di war a gën a mën a ubbeeku booy nekk fii yëpp ku ci nekk yaa ngi bëgg ñëw ñoom papa papa te papa forme bi indi macha allah kii lu mu ci yokk tey war na mën a xam nga di ko encouragé di félicité Siteu di ko wax ne moom it làmbam ubbeeku na war war a xool ci kaw ah parce tamit làmb ji waroon nekk fii tamit di bëri di daan nii daan ay exploit nii ba pare toog fi nga toog ah Siteu il est temps tamit mu mu dem ci kaw waaw